ci salaamaaleykum salaamaaleykum chers amis internet yi nga xamante ne yéen a safoo di tiitaroo bu baax a baax Kër Ndaanaan TV rawatina émission mag bi nga xamante moom mooy Fësal sa Ndaanaan nga ci ànd ak di jéem a moo ñaale sama ambiance l'enfant chéri de Nguer Marène Kër Massar maa ngi leen di sargal bu baax di leen kontaane di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax ay ca numéro bu bees la ñu am artiste boo xamante ne allah doomu Fatick la séeréer la waaye joolaa la bàyyi ko ñëw Dakaaru Njaay jël Diop Sangomar nekk nekk université Cheikh aussi tamit di wane na mën ko ko def en temps aussi di jàng waaye base musicale la mu nga nekk fële di Parcelles Assainies 1 ba 26 ginnaaw bi ñu sante yàlla di gërëm suñu ay waajur bu baax a baax a baax baax dañuy ziar kilifa eh, bu baax a baax baax waaye di masaw yóbbuwaale leen fi nga xamante ne macha allah moom mooy seen activité ñu ngi fii ci tëng géej fii la kaddu gi di bawoo Kër Ndanaan TV la chaîne de l'élégance Afrokid maa ngi lay bëggee di la siyaar di la dalal bu baax a baax ci Feusseul sa ndaanaan Kër Ndanaan TV ok ok merci beaucoup mm-hmm. ñu ngi lay siyaar aussi di la remercier bu baax a baax mm-hmm. ci invitation bi ñu def nii quoi parce mm-hmm. que vraiment c'est pas facile mais je te remercie daal maa lay béggee bu baax quoi. en tout cas man maa gën a kontaan ñu yàggoon ko bëgg depuis bu ñu xamante ba léegi yàlla soo koy dogal tey. Euh, avant tout sama première question mooy damay laaj kan lan kan mooy Afrokid ak lan mooy Afrokid d' abord. ok ok donc euh, je te remercie pour la question. Mm-hmm. en fait Afrokid euh, c' est un artiste rappeur. Et Afrobeat, il fait des afro trap et tout quoi. Mm -hmm. Mais le nom surtout, comme il l'a demandé, mm -hmm. moi euh, Afro, ça fait référence en, l'Afrique la, quoi. Si on dit Afro, tu penses à l'Afrique. Mm -hmm. Et Kid, c'est un jeune, c'est l'enfant. C'est-à-dire que mm, là où je viens, c'est l'Afrique quoi, c'est l'Afrique mon identité quoi. Mm-hmm. Et si j'ai dit que je m'appelle Afro Kid, c'est pour euh, montrer que et, moi, moi, mes ambitions, c'est pas aussi, seulement d'être ici au Sénégal pour faire euh, la musique au Sénégal, mais je vis ailleurs. Ailleurs. Cause pour laquelle je me dis que je suis afro-hit. Parce que si je suis un fils de l'Afrique, mm -hmm. voilà, je peux aller avec mes identités africaines ailleurs, quoi, pour montrer l'africanité, quelles sont les sonorités de l'Afrique. Cause pour laquelle même j'ai pas choisi le rap, j'ai choisi l'afrobeat, toutes les musiques, pour montrer les sonorités africaines et quoi. Afro-hit, quand tu a commencé la musique, bonne année voilà la musique euh, je je dire que man yàgg naa def musique. Mhm. mais c'était pas euh, musique euh, boo xam ne maanaam dama ko jël au sérieux quoi. Mhm. je faisais la musique et comme di fo di kaf affaire yooyu. Mhm. mais lorsque j'ai eu mon bac en 2017. j'ai commencé à faire de la vraie musique. J'ai commencé à faire des singles, mm -hmm. voilà, sur ma YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube, mm -hmm. voilà, j'ai commencé à avoir des fans, des choses comme ça. C'est en 2017 que tout est officialisé. quoi J'ai mm-hmm. commencé à faire de la vraie musique, des choses comme ça. 2017 mm-hmm. commencé def musique euh, ñaata single nga am wala soit ñaata album nga am aussi. voilà euh, tu vois depuis 2017 mm-hmm. il y a eu entre 2017 et 2018. Euh, ba 2019. je, je n'ai fait que sortir des mais c'était pas des beats. que mhm. j'ai programmé. Mhm. C'était des bits téléchargés mhm. sur YouTube seulement. Mais à partir de 2019, j'ai commencé à essayer de sortir ce qu'on appelle un projet de 400 voilà, que j'ai appelé Follow Voilà, j'ai sorti le projet, j'ai mis sur, les, sur, toutes les plateformes. Je suis allé chez Kézit, mm -hmm. tu connais Ils m'ont signé en distribution. Voilà, c'est là que j'ai commencé à faire de la vraie musique. Voilà, le projet est disponible sur YouTube et sur les plateformes aussi. Et le projet, il y a combien titres dans le projet Dans le projet, il y a quatre titres. Mm -hmm. Voilà, comme je t'ai dit, le projet s'appelle Me Back. Mm Et il y a quatre titres. Le premier titre, c'est Tranquille. Je l'ai clippé même, le clip est sur ma, ma YouTube. Mhm. Il y a aussi un autre son que j'appelle Afro Kid. Afro Kid. C'est-à-dire, mhm. J'ai essayé de faire des punchlines, des, des, des, des, des ego mhm. pour montrer euh, de quoi je suis capable. Quoi. Parce qu'au Sénégal, si tu commences, il faut faire de ego trips, des trucs comme ça. Mhm. Il y a aussi un son que j'ai appelé euh, paniquer. Mhm. Voilà, paniquer. paniquer. Si tu si entends paniquer, mm -hmm. euh, ça peut t'amener sur euh, paniquer. paniquer. Mais aussi, ça peut t'amener sur paniquer. Mm de une sorte de punchline mm-hmm. pour attirer l'attention des mm-hmm. de mes confrères rappeurs quoi. Mm-hmm. voilà. Uh-huh. ok euh, quatre titres yooyu est-ce nga ma ci may benn acapella ci benn son yaay choisir ci quatre yi loo ma ciy may rek à Kër Ndanane TV Feusseul sa Ndanane nga xam nga quelques secondes rek benn acapella bu dëgër. oui oui c'est possible. on mais tu veux que je chante. ou bien que je te donne. chante voilà. Mhm. pour chanter là. Mhm. Et le son que j'ai c'est ça que je vais essayer d'interpréter. Allez, on y va. Voilà. Plus besoin de me battre, yeah. plus de soucis à se faire, yeah. Sur ce face, on va se pardonner. Tu prendras toujours ma défense, yeah. Tu feras pour rendre, je vais pas me fatiguer. Parce que tu l'as mérité, on accueille chaleureux tant d'affection et de tendresse. Auprès de toi, je veux rester. Ta sincérité, pas pareil, un truc de malade. Dis ce que tu veux, tu vas make it. Je suis tranquille. Je réfléchis. Qui si oui, je suis l'homme qui tombe. Oh là là. Yes, I. Aïe, tu m'as dit non, il s'appelle Afrokit, euh, l'enfant de Fatigue. basé wu fi nga xamante ne moom mooy Dakar di étudiant macha allah troisième di ndaanaan boo xamante ne nee naa la a way a a baax eh, ma accompagner saa su ne ci sama émission fa sa da euh, fay naan macha allah mu nekk ndox bu sell set te wóor ndox bi gën daal mu ngi noonu ayca ayca mu ngi noonu ba tey euh, li nga xamante ne moom mooy vinaigre aussi maam jaara mu ngi nii aussi tamit ah, set na na sell na te wóor na maa maa la wax loolu ay ca mu ngi noonu gis ngeen africain mu ngi naan ndox mi parce que day defar voix ah artistes yëpp dañuy naan li nga xamante ne moom mooy aquatera nee naa la ba tey ak maam Diarra moom itam mi ngi nii macha allah di vinaigre boo xamante set na sell na wóor na waaye ba tey Ibrahima Jolof agricole ña nga ci wàllum yi daw leen gaaw euh, la lépp lu jëm ci wàllum multimédia da koy daal jaay moom moom mi nga xamante moom mooy Pam Mbaye Diagne waaye nag kenn ki nga xamante moom mooy euh, waa Tawfekh multimédia waaw wax naa ko léegi macha allah mu nekk sponsor yoo xamante ne ñu ngi jàpp bu baax a baax a baax ci combat bi ay ci Afakit ma ñu gis par exemple projet bi mu nekk 4 titres. kon dama su ma la déggee mooy 2017 ba léegi 4 titres rek nga mus a def. oui oui normalement. est c'est minimum. waaw 4 titres laa def. Mhm. Euh, boo xoolee ci côté production boo xam ne maa ko mhm. moom. Mhm. mais j'ai fait d'autres sons yoo xam ne. ay featuring comme ni ma wax la téléchargement. donc c'est ah, télécharger les beats seulement instrumental yi. ay quoi. voilà donc loolu. du doo ko moom quoi. doo ko mën a jaay mais soo yooyu sax ñoo gën a neex gars mm-hmm. mais projet bi anam pare na pareegu. wala projet bi pare na mu ngi mm-hmm. YouTube. mu ngi dans les plateformes. de téléchargement carte disponible na actuellement. waaw mm-hmm. waaw clip naa benn bi aussi. tranquille bi mu ngi YouTube. boo demee sama chaîne YouTube Afro Kid officiel. da ngay mën a xool sama carte titre yi ak clip bi. Mhm. depuis kañ la génn euh, projet bi. Euh, ça a été sorti le 24 octobre. 2020 21 bi passé. 2021 waaw. d' accord léegi avant laa defoon son yu son yu yi quoi. avant mhm. ça laa defoon son yu léegi aussi beneen bi mooy ci ban label nga nekk actuellement. moment bi. je peux dire que nekkuma ci label nekkoo ci label parce que Kesit c'est pas que dañ may produire mais euh, dañ may distribuer seulement mais fan ngay enregistrer voilà pour enregistrement bi nag c'est un frère la plupart des enregistrements benn frère la bu tudd Sam moom ma defal euh, kii bi euh, record yi quoi mais les beats c'est Fantastic Beat qui les a fait ma gis na tey sa enfance da nga en tant que séeréer aussi wala joola fooyee nga ay foofu xale genre ay bëre ay football yooyu waaw waaw waaw c'est vrai. Mhm. séeréer moom comme on mhm. ñoom bëre mooy seen cosaan quoi. Mhm. donc du coup foowee naa bëre bu baax a baax a baax. voilà foowee naa bu baax. foowee nga bëre quoi fan noonu fan nga fan nga Fatick parce que Fatick laa juddoo benn dëkk bu ñuy wax Ndang. bokk ci Diouroup côté Diouroup. Senghor yooyu noonu. voilà foofu laa juddoo jàngee foofu noonu ba en classe de quatrième. ci laa ñëw Dakar. Mhm. continuer fii troisième. Mhm. fii laa amee sama BFEM après mhm. ma am bac. ba maa ngi université ren troisième année quoi. léegi daal kon parcelle nga amee BFEM aussi nga am bac. mais en tant que aussi euh, étudiant di jàng aussi def musique est-ce que c'est facile quoi wala c'est pas facile. bon comme on dit ce n'est jamais facile quoi. mosul yomb. parce que jàng bi war na la. xam nga des fois da ngay am leçon yi war ko jàng et tout quoi si tu ne sais pas comment tu mën nga yàqule si jàng bi quoi mm-hmm. mais nag boo xamee ne lii bëgg nga ko te aussi sa va quelque part avec les études aussi mm-hmm. parce que boo jàngul euh, bu dee yow jàngoo mënoo mënoo mm-hmm. def musique comme tu veux parce que dafa laaj professionnalisme ak euh, nga am connaissance quoi voilà Afrique euh, moom ban façon musique lay def quoi afro rap arabe bi ban lay def ban genre voilà man maa ngi def comme ni ñuy wax euh, les musiques modernes quoi. moderne voilà damay ànd ak euh, kii bi rek. Mm-hmm. Euh, monde bi monde bi quoi voilà def afro beat mm-hmm. comme beaucoup le font. Mm-hmm. afro trap afro pop. mën naa def genre musique yu bari polyvalent la quoi rap sax dama koy def. dama koy def mais focaliser wu ma foofu. voilà mais kan mooy sa artiste boo xam ne daf la daf la neex quoi ba tax nga def préférence wala idole wala genre mu dugal ci musique. waaw mun naa wax ne j'écoute tous les musiques. mais musicien bi nga xam ne moo ma marqué. sama temps enfant mooy mooy mooy Canabasse quoi. Canabasse voilà moom mooy artiste bi nga xam ne déglu naa ko bu baax. Mhm. xam nga mu mu doon ma def effet boo xam ne. Mhm. ay gëm sa bopp. Mhm. mën nga ci génne et tout quoi. mais Canabasse ban son moo la gën a neex moo la gën a marqué nga xam ne mën nga sax toog di ko wayaat tey jii nii. non man moom je ne suis pas fort. di wayaat son jàmbur quoi. xam nga mais bëgg nga ko daal mais voilà mais dama doon déglu son bi mooy def effet. xam nga am na son boo xam ne woy na ko récemment ki du récemment sax mais bokk na ci son yi mu mujjee woy. mooy euh, bi mu def ci DK Spirit bi. Mhm. ñu koy woowee weeruwaay. weeruwaay yaay sama weeruwaay. Mhm. son boobu noonu touché na bu baax a baax a baax a baax voilà. lan moo tax mu touché la son bi wala soit but bi lan moo la touché exactement paroles yi quoi. waaw paroles yi paroles yi dafa touchant. Mhm. parce que basse dalay wax loo xam ne. vraiment ça touche ta vie quoi. maanaam li ngay dund yow kese jafe-jafe et tout. day dem puiser foofu mu bind. du coup daf lay neex quoi bu dee yaa ngi si dund yooyu noonu rek da lay neex quoi. mais est ce bi afrobeat tey en tant que Fatick waa tey est que autorité Fatick waaye ñu ngi lay jàppale ci côté musique bi ndax yaa ngi def ay démarches euh, pour ñu mën cee jàppo si voilà loolu moom comme ni ko gars yi di waxee. loolu moo war a am quoi. Mhm. boo nekkee si yenn affaire yi nii. Mhm. c'est bon ngay dem si ñi nga xam ne am nañ autorité. Mhm. mën nañ la jàppale et tout quoi. mais vraiment bon loolu moom ma ci sama musique quoi. dëgg rek laay wax moom mooy gis na musique moment bii nii. Mhm. staff bi sax taxaw na mais taxawul noonu aussi. Mhm. samay xarit laay àndal nii rek pour l'instant. Mhm. mais normalement war naa mën a jour bu normal. xam nga boo xam ne dina mën a jàpp si affaire yi dox li ngay wax nii yëpp. sinon man maay dem dox ko. dox yooyu amagul quoi. amagul non mais en tant que li nga xamante ne mooy sa projet bi am nga yeneen idée comme ay ay show yoo xam ne war nga mën a organiser soit Dakar wala fi nga dëkk Fatick. waaw idée yooyu mhm. yooyu laa am sax ni temps yi nii mhm. gars yi tamit loolu la ñu wax mhm. parce que gars yi maa génn ay son ñu ngi koy déglu vraiment ñu ngi apprécier quoi ñu ngi apprécier bu baax ñu ngi may laaj ay concert ay affaires yooyu noonu mais affaires yi dafa laaj moyen aussi voilà dafa laaj parce que boo deful boo defee concert am noo ko defee xam doo ci am li nga bëgg quoi il faut nga am concert boo xam ne dina xaw a normal des choses comme ça te man étudiant kese laa. étudiant bourse laa yaakaar yooyu amul gën a xam. waaw mais est que ñu ngi lay invité si yeneen concert yi yoo xamante ne ay artistes lañ soit mu doon mbalax wala rap wala leneen quoi nga ñëw participer na nekk. waaw bon dañ may invité rapport Fatick yi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ce sont mes amis d' enfance. Mm-hmm. yàgg nañ xamante ñoom ñuy rap comme man dañ may invité. Mm-hmm. fii Dakar aussi yenn saa yi gars yi ñu invité ma. doon naa dem si école aussi. voilà mais concert bu mag moom. voilà loolu amaguloo ko voilà parce que côté mënaan ci man aussi moo des. voilà gis nga voilà côté hmm. mais tey jii nii à part li nga xamante ne moom mooy sa projet aussi am na yeneen projet yooyu préparé comme yeneen son yoo xamante ne mu ngi sa kanam peut être pare na mu ngi studio wala bind nga ko ba teg ko quoi yoo xam ne war nga ko mën a génne d'ici du yàgg dara. waaw waaw waaw moment bii moom. bon mun naa wax ne amatuma son yoo xam ne pare naa ko. pare nga ko pare naa ko nii comme genre pare na denc naa ko mais maa ngi commencé di woyantu comme ça. Mhm. am na ay bit aussi ay yooyu noonu voilà maa ngi togg ci suuf daal. mais parewuñu mhm, voilà maa ngi togg ci suuf. Mhm. te bëgg naa dóor son boo xam ne su ma ñëwee day doon day doon day doon confirmation quoi. xam maa ngi doon nii ñu ngi ne voilà. mën na wala mënul mais dama bëgg def loo xam ne. ñëw confirmer su ma paree rek. ku gis rek. damay neex a jàppale foofu noonu. bokk ci game bi quoi. voilà mais kan moo lay bindal. non kenn du ma bindal. yaa bindal sa bopp waaw man maay xalaat bind. teg waaw. Mm-hmm. mais jàpp nga ne instant yi li ngay bind mu ngi nice mu ngi jaar yoon quoi. waaw mu ngi mu ngi mu ngi nice ah, mu ngi mm-hmm. nice parce que gars yi ñu ngi koy aimé. Mm-hmm. te ñu ngi may wax ne aussi c'est bien mais man xeet naa loolu noonu quoi. parce que li ma war a joxe normalement. pour pour bind loo xam ne du am si kii sàkk. defaguma ko quoi. moo tax laa laa laa son yi may yi ma nekk di préparer nii. maa ngi bind ak ak force quoi maa ngi bind bu baax. Mm-hmm. di ko di ko di ko jàng bu baax quoi. Mm-hmm. voilà pour mu nekk lu carré. Mm-hmm. mais en tant que jeune tey euh, ak ni jamono mel par exemple nawetaan bi violence bi arène bi ci làmb ji violence bi en tant que étudiant en tant que aussi euh, artiste porteur de voix ban message ngay lancé à travers Kër Ndaanaan TV Fës sa Ndaanaan. jeunes yi mën a déglu ki nga xam ne mooy afro afro kid mu jàllale message yoo xam ñu ngi koy dégg wala mu bind ko woy ko. comme yéen yéen ay la voix des sans voix mm-hmm. est-ce que tamit jotul ñu xool situation politique bi aussi ak jamono ni mu mel mm-hmm. peut-être inondation bi fi jaaroon peut-être Covid bi situation bi nga xam ne moom la réew mi di dund yow en tant que ndaw bu dëkk ci réew bi nga ne panafricain nga aussi lan nga ciy xalaat voilà vraiment loolu dañ cee war a wax quoi mm-hmm. comme ni ko waxee en tant que ndaw dañ cee war a wax quoi mais man li ma ci am euh, lu ma ciy wax mooy vraiment euh, Afrique muy Sénégal nit fi nga nekk foofu nga am quoi li nga war a def mooy nga naayisal ko. Mhm. tu fais tout ce que tu peux pour loolu noonu nga am lu nice mu avancé et tout quoi. Mhm. mais waroo mën a def lu yàq. Mhm. xam nga muy ngay dem ci euh, lamb di def violence wala ci football. wala ci milieu bu mu mën a nekk. même les politiciens aussi ils doivent toujours faire quelque chose pour Afrique bi ñu nekk nii mu mun a changé aussi. voilà y a beaucoup de problèmes ci ci ci ci ci ci ci Afrique quoi. loo xam ne war nañu mën a vraiment changer suñu kii mais bon. je ne suis pas trop politique nag. Mhm. voilà mais vraiment li ma wax mooy nit ku nekk fi nga nekk rek. Mhm. foo di nekk rek di mhm. travaille pour ta patrie travaille pour fi nga am quoi fii la ñu am. voilà. ak élection locale yi di jub aussi tamit nga nekk parcelle aussi di fa yeewu mais dëkk Fatick. la yan conséquences nga gis yoo xamante ne tey jii nii mair bi fa nekk war na ci mën a revenir muy ñaari localité yi nga xam ne foofu nga dëkk muy Fatick ka muy parcelle. waaw comme on dit rek à chaque fois bu dee bu dee dañ laa teg nga nekk maire. waaw xam nga moment bi gars yi ñu ngi xëccoo pour nekk maire. Mhm. mais affaire yi moom mooy maanaam li ngay xëccoo ba ñu jox la ko. Mhm. waroo rusloo ñi la teg foofu noonu quoi. Mhm. fait tout pour ñu gis seen bopp. xam nga boo gisee loo xam ne demut fexeel mu dem. xam nga on sait que nit mënoo ñëw rek. Euh, def lépp mu parfait. mais mais chaque jour nañu joxe exemple boo xam ne gars yi nga xam gars yi ñu ngi joob quoi. voilà ñu bañ di def loo xam ne après. c'est déplorable quoi. voilà comme ñu ko bëri ni ñu koy defee quoi c'est pas voilà élection yi tamit ñu def ci ak non violence quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà de de dans tous les deux côtés ñu def ci mm-hmm. ak non violence. voilà tey jii nii boo nekkoon président Sénégal wala nga nekk autorité ci dëkk bi lan nga fi changé ak lan nga fi yokk ci ci réew mi. bon su ma nekkoon autorité moom. vraiment dinaa jàppale les jeunes quoi. voilà parce que comme ni ñu koy waxee les jeunes sont l'avenir du pays. bu dee jeunes bi gars jàppale nañ leen rek ça veut dire que. am nañ euh, espoir ci ci ci dans le futur quoi. Mm-hmm. on peut dire que futur sera euh, normal quoi. bu mm-hmm. fekkee jeunes yi jàppale nañ leen. Mm-hmm. voilà loolu laa gis quoi ci côté jeunes yi mais damay wax ci musique. su ma nekkoon euh, président. je vais aider les artistes. parce que nekk artiste fii Sénégal c'est pas du tout facile. da ngay woy sa woy yu neex. yaa ngi dégg peut-être sans nga produire sa sa album. ci as tout l'argent mais peut-être boo demee si yenn label yi ñu exploité la. xam nga te yaa fay sa xaalis mais ils vont t'exploiter parce que tu ignores beaucoup de choses ça veut dire que l'État bu jëloon bu jëloon yenn structures yi mu teg ko mu def musique bi industrie ba boo ci nekkee di woy lu neex nga mën a gis sa bopp foofu noonu kon ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp te Afrique mooy avancé Sénégal mooy avancé mais c'est des gens qui habitent Europe wala ñu dëkk feneen ñooy ñëw fii Sénégal ñu exploiter suñu artistes yi da mujj découragé bàyyi quoi te yaa ngi def lu neex boo defoon beneen pays da ngay réussir bu yàgg mais ganaan mooy loolu waaw loolu moom métti na ma quoi. loolu métti na la mais en tant que artiste aussi nan nga gisee musique sénégalaise bi parce que dañu gis ne musique bi est mu ngi dem wala ndax demul aussi. waaw musique bi comme li ma wax nii rek. Mhm. on a des bons artistes. Mhm. Sénégal ay artistes kese la am. Mhm. gars yi dañoo mën wëy. te vraiment li ñuy def neex na mais benn côté dox na. mais commencement moo gën a métti sax. waaw ça veut dire que artistes yi su ñu demee ba ci kaw. c'est bon mais au début. moom métti ñu bëri dem nañ découragé te ce sont des atis yoo xam ne mun nañ am renommée internationale mais découragé nañ parce que début bi moom métti mhm. voilà loolu loolu rek moom moom laa gis quoi début bu métti bi acca mu ngi noonu Cheikh Lamine Ndorone yi nga xamante ne yéen ñu suivre à travers Kër Ndanane TV ak Fassa sa Ndanane acca Ibrahima gis nga sama sañse macha allah euh, bu laajte nee naa la euh, na woon fa woon la comme d'habitude la Cheikh Kalash Cheikh Faysal ma nga fële ca terminus bu Kër Massar Dakar dem dikk macha allah nee la moom may accompagner saa su nekk ci sañse bi 76 la 510 63 08 510 la 63 08 macha allah kooku mooy Cheikh gi nga xamante ne macha mooy euh, ndaanaanu ndaanaan ñun waa Kër Ndaanaan TV ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di kontaan Afrique mhm. euh, nekk étudiant nekk élève comme sànq maa la koy wax je pense que métti na parce bon man damay suivre philosophie. moom laay suivre université quoi. philo mhm. ngay suivre quoi faculté boobu laa nekk quoi. Mhm. cest boo ci paree lan nga war a mën a nekk ci Sénégal par exemple wala bitim réew lan nga war a mën a servir àdduna. bon gars nag bon li nga xam ne moo moo moo nekk lu officiel. Mhm. mooy philosophie boo ko defee ba pare mën nga doon prof. ñu bëri prof philosophie la ñuy gën a kii. mais ci biir philosophie dafa am ay branches aussi am na branche yoo xam ne mën nga ko toog. yu bëri nekk chercheur. wala sax nga nekk psychologue ça dépend quoi mun nga nekk affaire bu bari daal mun nga liggéey si état bi aussi wala leneen ak leneen mhm. bari na quoi mais loolu li nga xalaat ne moom mooy sa rêve aussi boo ko nekkee ak musique est-ce que ànd na d'abord euh, nekk nekk nekk nekk professeur di way est-ce que loolu c'est facile bon nekk nekk nekk nekk psychologue di way aussi déjà déjà euh, en philosophie je suis mhm. là mhm. mais ça ne veut pas dire que euh, prof laa a doon quoi mais psychologue bi nga wax nii nag j'aime beaucoup ça. Mm-hmm. waaw mais bon surtout damay jàng pour xam-xam aussi. Mm-hmm. voilà fi ma nekk nii su ma la waxee dëgg rek. Mm-hmm. li ma bëgg au fondement c'est la musique. c'est la musique voilà. te aussi vraiment sentir naa ci sama bopp ci côté yu bari. voilà mais comme li ma la wax rek. seen n'est jamais facile quoi. mais foofu laa gën a def sama kii quoi mais nag. fee bëgg naa pour la connaissance. voilà pour pour instruire pour xam ni ma war a xam ba fu ma dem. ñu xam ne kii am na lu mu jàng. am na lu mu jàng mais ban message ngay euh, lancé à travers Kër Ndanane balaa ñu terminer suñu émission sa mbokk étudiants yi nga xamante ne da ngeen di nekkandoo mu metti trop macha allah ban message nga leen di jàllale en tant que jeune en tant que étudiant tamit aussi parfois bu ñu lu leen naxar yi yan yan façon naxaru lañ ko mën a defee pas di yàq wala di toj loo xam ne euh, alalu askan bi aussi. ok ok waaw bon dama leen di wax ne rek. dara yombul quoi. Hmm. voilà ñun ñëpp on est là-bas. Hmm. vraiment gis nañ ni muy méttee des fois quoi mais il faut nga modérer li ngay def. Mm-hmm. te aussi nga xam ne sa objectif. Mm-hmm. voilà moo gën a am importance que yenn affaire yi quoi benn yoon yombul. sa mm-hmm. sa va être difficile mais boo toppee di ñaxtu rek. da ngay perdre de vue sa objectif. voilà nañ jàpp suñu objectif bu baax góorgóorlu yàlla li mu wax rek mooy am nañu góorlu bu baax rek loolu laa leen di wax quoi. sa mot de la fin lan ngay terminer kan ngay remercier yan projet moo nekk sa kanam aussi ak euh, lan ngay wax aussi Keur Ndanane TV télévision bi nga xamante ne nee nga moo la njëkk a dalal ci euh, télévision aussi ak Feesal sa Ndanaan première émission bi la njëkk a accueillir sa carrière mm-hmm. ok bon li may wax foofu mooy d'abord mm-hmm. dama lay remercier mm-hmm. parce que lii yëpp yaa tax quoi vraiment voilà xam naa la tu m'as aidé. Mhm. indi nga ma ba teg ma fii et tout quoi dama lay remercier si loolu. di remercier aussi waa kër gi yëpp. Mhm. xam nga parce que yéen a ngi def job bu rafet quoi. Mhm. yéen a ngi def lu rafet. di remercier aussi fi ma jógee. voilà di remercier ma famille. ak ñi nga xam ne su ñuy déglu sama musique di ko apprécier ça fait plaisir quoi. vraiment di kontaan si ñoom ñëpp voilà ku lim jum quoi mais maa ngi siyaar ñëpp. di kontaan si ñëpp quoi. ayca di ko jaajëfal bu baax a baax moom Afrokid di artiste boo xamante ne macha allah mu ngi dëkk Fatick wante nee naa la base mu ngi nekk fi nga xamante ne moom mooy Parcelles Assainies nekk étudiant nekk troisième euh, musique boo koy def aussi dafa war a fekk nga nekk ci activité di mën a wax nit ñi mën la dégg ay di bu baax a baax waa Kër Ndaanaan TV yëpp macha allah PDG ak ki nga xamante ne moom mooy Iba production Ndiaga programme maa ngi koy jaajëfal baax a baax Ibrahima ak si la assisté yëpp maa ngi leen di kontaane baax a baax ne naa la si sa yi nekk ci kër gi ku lim da ngay juub mbala doo maa ngi leen di kontaane baax a baax a baax tous les animateurs yi nekk ci Kër Ndanane TV maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm di leen sant baax a baax a baax Ibrahima la jinne caméraman di la sargal ak sa équipe bi yépp di gërëmaat bu baax a baax a baax waa eau minérale bi nga xamante ne mooy Aquaterra di ndox bu seeral téwoo dem accompagner saa su ne sama émission miin ngeen ko xàmmee ngeen ko waaye kenn du euh, vinaigre xamante ne moom mooy macha allah moom itam maam jaara gis nga moom itam macha allah amul dara ci cholestérol boo koy lekk macha allah day euh, gaaw a rees bu baax a baax lépp loo ci def day daal di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pape Mbaye Diack euh, nekk fi nga xamante ne moom mooy pharmacie Astel fii ci euh, Tëngéej di leen jaajëfal bu baax a baax mooy waa taw Tawfekh multimédia waaye damay daal dem ba kilomètre 50 fekk fa Jolof agricole ña fa ñoom itam yëngu ci wàllu mbay mi àndoon ak Kër Ndaanaan TV dem ba fi nga xamante ne moom mooy di wàllu Saalum Passy ku ne Saalum ne bay macha allah dëkku Afrique it ñun ñooy waa Kër Ndaanaan TV ñu ngi fépp ci Sénégal di leen kontaane bu baax a baax di leen jaajëfal di leen wax ne télévision nii lay mel ñi ngi ci clip vidéo di ko réaliser ak série macha allah waa Kër Ndaanaan a baax leen jaajëfal bu baax a baax ayca ci beneen numéro beneen émission ak di jëm mu Ndialaas mu ambiance ci beneen émission Fësël sa ndaanaan fii ci Kër Ndaanaan TV ayca jaa ngeen jëf